fort de ses enseignements sur le prophète Mohammed, ému par l'ardent désir de servir son Seigneur en même que d'être utile à ses corologionnaires. Sidi Hadji Malik s'adonna à l'enseignement dès l'âge de 18 ans. Maodo était devenu professeur plein. Il enseignait à Dakar, enseignait à Ndiarndé, tantôt à Saint-Louis où il a pu former quelques 200 juridis en l'espace de sept ans moo tax Seydi Hadji Malick Sy beaucoup d'incertitudes planent sur la date de naissance de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy ñii nee na Maodo 1857 le juddu ñii nee na 1856 yeneen historien ni 1855 waaye li ma jàpp man te jàng ko dans la vie et l'œuvre de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy avec Paul Marty et Rawane Mbaye Alaaji Alioune Diop Maymuna moo daan bindal Maodo nee na Maodo est né le mardi six heures ci ngoon 1853 à Dagana au faubourg de Gaaya où les tubaab bombardaient Waalo moo tax Seydi Hadji Malick Sy moo dàq ci sëriñ si Maodo moo raw ci sëriñ si man je ne awma ragal pour wax parce que ragal ragal ragal péete day xañ a wërsëg ñëpp laa jox cër nag waaye Maodo moo gën a rafet ci sëriñ si Maodo moo gën a maandu ci sëriñ si Maodo moo raw ci sëriñ si Maodo moo leen dàq solu Maodo moo leen gën a civilisé ñu ne waaw foo jëlee li ma wax ma ni Paul Marty moom la gouverneur général yabaloon ni ko vérifier ma sëriñ si ci réew mi ku ne na mu tooge nag ma ko wax xoolal Paul Marty ki mu yabaloon moom gouverneur général ñëw fekk Maodo Tiwaawan dix-huit heures ci ngoon muy jàngale mu xool Maodo ca taxawaay ba xool ko ca coleen ga xool ko ca nuuru bakkan ga xool ko ca na muy toogee xool ko ca teggin ya daal di bind dem ni gouverneur général vérifié na sëriñ sëpp am nañ cër te yàlla bu wér mais le maître de la zawiya de Tivaouane exceptionnel ñu ne ko waaw di waay den def ni waay ñu ne Seydi Hadji Malick xoolal mu ni ko quel est le portrait de sa marabout mu ko le maître prêtre de la Zawiya de Tivaouane était un homme de grande taille au teint clair ñu ni beau de visage comme l'attestent d'ailleurs ses photos avec une figure avenante au trait avec des expressifs laissant l'impression d'une intelligence vive et sûre d'elle-même. La silhouette à la majesté nous dit la tradition accentuée par le port de boubou africain. Mu ne fort ample, coupé souvent à la jalaba dans lesquels Sidaji Malick se drapait. Mu ne Paul Marty, mu ne ces boubous africains se coupaient souvent dans des tissus de cotonnade de blanc à l'indigo. mais Maodo aimait se jeter négligemment sur les épaules pour rehausser et agrémenter l'ensemble une belle salle appelée chez nous Tamba Sembé. Mais le tout sur surplombé avec le parasoleil qui mesure 92 cm de lon qui correspond au nom du prophète Mohammed qu'il tenait souvent. Je présente Seydi Haji Malik parmi tous ses contemporains, comme le marabout, le plus pédagogue, le marabout, le intellig plus intelligent, le marabout, le plus propre le marabout le plus élégant le marabout le plus beau et le plus gentil parmi tous ses contemporains moo tax boo demee ca Gabon Maodo samp na fa zawiya Ndari Mbay moo fa représenté Maodo nga dem ko Guinée Conakry mosquée sénégalais nga fo nga dem Chine ña nga fay rëkk salatul fatiha nga dem Inde ña nga fay rëkk salatul fatiha picc yi ñu ngi rëkk salatul fatiha machine yi nekk ci oto yi ña ngay rëkk salatul fatiha lu salatul fatiha nekkul du dox loolu moo tax susu ya ca Guinée ni Maodo afañeera malenke yi ni Maodo akañi kosobe naar yi ni Maodo maalum tukulu tukulóori ni ko gongo séréer si ni ko okkino o maga naage remena joolaayi ni mawɗo an a ama suta amañu di e yoola espagnol yi ni mawɗo un grande ombre nowes nun ko conocido en su proprio pais portugais ni mawɗo u grande dome naawe koñu siidu dentro du seu pays chinois ni mawɗo kuwe zunze gowe kan summe japanay ni mawdo aro atona mawe danse o kareno kanino kito ta taiwa dare mo sidana kata ngadem cet casamance soseyni mawɗo mooɓa amo minti aɓe banko min wolu makko alon gadem amérique américaine mawɗo a biga man is a nave ono riide in is awnu country da abilo umame da abele uma def leen ni xalifa mbay si dem na da abele uma ma da am la ni yaa i wax leen ko Modou Malick Lo ana Muhammadan centenaire bi ja abil umami ja abil umma mani déggal la baayu suura way ni ja abil umama ناسيا أبدا أنا محمد أنا مختار في الخدم من سين بسالم كجور جامبر تواوان هنا فنكم أود برم قلاسا بأبيات تقتنما أمان lu neexu du doy xanaa dañu koy dog damba déwéni déwéni muxtaar fële musalame ni jaa abil umame daa abil uma waxoon naa la ko moom ñëw na léegi jaabil uma